asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ndigal bàyyi ko ci xalifa général kulu murit Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér wàcc kër sëñ Mandoumbe Xabbaan ca bopp ba sëriñ Ibrahima Mbacké ñuy ñaan yàlla kàttanal ko jaar ci kan sëriñ Ibrahima Mbacké mi nga xam ni mooy xalifa sëriñ Abibu Mbacké ak mbooleem njaboot ak sëriñ Abibu Mbacké gépp ci ndigalam ak kilifteefam ci lañuy ñuy àddoo ngir woote bis bu mag bisub diine bisub lislaam muy bisub laylatu xadar bi nga xam ni baaxoo nañ koo def at mu jot ca Touba Paspal nekk ca région bu jurbel département bu Bambey commune bu Baba garaas moo tax nag sëriñ bi ñu toog ak sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abibu ngir woote woote boo bule bis bi nag mi ngi tolloog ñaar fukki guddi ak ñeent di alxemes le 30 mais ca Touba Paspal sëriñ bi ne mi ngi ciy woo mbooleem njaboot ak sëriñ Touba gépp tàmbalee ko Daaru Xuddus kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci kër Cheikh Mouhamadul Moutada kër Soxna Faat ji ba ci kër Soxna May mbooleem seex yi bàyyuñ kenn bàyyuñ fenn bàyyuñ ñenn bis boobu nag sëriñ Ayibu jàmbaari sëriñ Mandu Mbéja jàmbaari seexul xadim ji moo ko daan woote di ko taxaw daan ko defal boppam ba jóge fi ñu ko ciy ñaanalaale mbooleem njaboot gépp àndandoo di ko ci ñaanal di ko ci fàttaliku ngir jëfam ju am solo jëfam ju rëy ji nga xam ni jëf na ko ci lislaam di ki nga xamante ni moo taxaw leetu xadar foofee ca paspal ak la ko wër lépp ba tey mbooloo mépp di ko fàttaliku saa su nekk muy leetu xadar bis bi nga xam ni ci la alquraanu karim wàccoon ngir woote woote boobu nag dañuy daal di jébbal kàddu gu njëkk gi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abibu moom sëriñ Mandumbe mi nga xam ni moo yor kàddu mbooleem njaboot ak sëriñ Ibrahima Mbacke gépp ginnaaw bu ñu amee ndigal ci sëriñ Touba sëriñ Mountakha Basir ak sëñ Ibrahima Khoudia tey mi nga xam ni mooy xalifa Cheikh Mandoumbe xaban ak mboolem njabootu sëriñ Habibou ñu ngi leen di fàttali bisub Laylatul Qadr boo xam ne suñu jàmbaar ja suñu yaakaar ja sëriñ Habibou Mbacke moo ko daan defal Cheikh Amadou Ndoumbé tànnoon nag bis bi nga xam ni moo gën ci bis yi bisu Laylatul Qadr di ci fàttaliku Cheikh Amadou Ndoumbé tànnoon nag bis bi nga xam ne sëriñ sëñ Mandoumbe ganee woon àddina fii ci Njax ci 1859. mu ngi gën a àddina ak sëñ la tànnoon di ci fàttaliku sëñ Mandumbe tànnoon nag guddi gën ci guddi muy guddi lay fi xadar di ko ci fàttaliku ci lu toll ci juróom benn fukki at ak nangam ba xam ngeen ni guddi kooku ci la daje ak boromam fukki guddi ak juróom ci la neew di layutu xadar kon mën nañ wax ni bis na bis bu làmboo mbuut yu bari bis bi ak ñaanuk sëriñ Abibu la kon benn bis la bu làmboo mbuut yu bari ndax guddi gu ñu daan fàttaliku sëñ Mandumbe daan ci màggal layutu xadar sëñ Abibu daje ceeg boromam kon guddi googu guddi njariñ la guddi yàlla barkeel la ñu ciy fàttaliku nag jàmbaari sëriñ tubaa yooyu nga xam ne lu ñu mas a am sëriñ tubaa jox nañ ko sëriñ tubaa jox nañ ko lislaam jox nañ ko yoonu murit mu sëriñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mandumbe nekkoon ñeenteelu xalifa bu Cheikh Mandumbe xabaan ñu koy fàttaliku fële ci Touba Pasfar moom la sëriñ Ibra wax ni mu ngi ko yëgal mbooleem koo xam ne yaa ngi ci biir Sénégal rawatina njabootu sëriñ tubaa suñ tuddee sëñ Sidi Abdou Lahad mi jëwrinu yoon wi ak sëñ Bass Abdou Khadir tudd nañ njabootu sëriñ tubaa gépp di ko yëgalit njabootu sëñ Mandoumbe nga xam ne ñoom ñoom moom bis bi jiital ci njabootu sëriñ Mudu Xabante sëñ Ibrahima Xujja mii xalifa bi ne ca bopp ba ak sëñ seex Bintu Mbàkke ak mbooleem ay rakkam di ko yëgal sëñ Abdourahim Mbàkke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Abdourahman ak ay rakkam di ko liggéeyal sëñ Xabaan mu sëñ Abdu ak mbooleem ay rakkam njabootu sëñ Cheikh naa tawa te sëñ daam nekk ca bopp ba di ko yëgalit sëñ Moustapha mu sëñ say Saynabu ak mbooleem sañ sëñ Cheikh Saynabu di ko yëgalit sëñ Moustapha mu sëñ Sidi Mokhtar Mbacke nga xam ne mooy jëwriñ Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye di xalifab sëñ Sidi Mokhtar ak mbooleem njabootu sëñ Sidi Mokhtar te ndaka jekk bis bii daf ko daan ànd ak ñun ñu ngi ko koy yëgal di ko ko fàttali di ko fàttali daara Alxuraanul Karim yi yi nga xam ne daanoon jàppale ci liggéey bi fu daara nekk bu weer bi musaana tere ñu commencé ko sëriñ baa ngi leen di soññ fu daara nekk ñu commencé loolu di soññ daayira yi nga xam ne ñoo lëkkale ci kër gi te njaboot gi jiite ko njabootu sëriñ abi bu jiite ko ñu ngi leen ci soññi fu waay mën a nekk xale yi nga xam ne ñu ngi nekk Touba te ay daayira sëriñ baa ngi leen soññi di soññi soxna Nday Mbàkke mi nga xam ne mooy mu mag ci jigéen ñi ak soxna jaar ak soxna Faama ak soxna Ami ak mbooleem seen rak ñu taxaw nen daan taxawee bu ñu xëyee danañ jàng alxuraan ba midi dalal gan ñu ziyaare sëñ bi bu ñu demee ba xiwlu dina am conférence religieuse bu mag boo xam ne dina fa am ay borom xam-xam dina ko taxawee sëriñ Amidou Diop bu Touba TV ak sëñ Abibou Fall ñooy taxawee Cheikh Sall mooy fanaane guddi gi noonu lay demee bu ñu demee ba fajar ci la ñu amal cérémonie officielle bi ci teewaayu sëñ Ibrahima Mbacke ak njaboot gi conférence bi sëriñ Talla Mbacke ak sëñ Mamour ak sëñ Xaban ak sëñ Cheikh njaboot gi yëpp sëriñ bi nee na ñëpp ñëw àndal ñoo ñu taxawul ko guddi gi nga xam ne sëñ bi da koo fonkoon wax ni ku ko fonk du ko fonkul ci man daana wax ni ku ci feeñ doo doo nëbb ku ci nëbb dootoo feeñ kon wax na guddi gi bu jotee fu waaye a nekk ci njaboot gi muy taalibe bëgg na nga ñëw ànd ak ñun fanaan ci guddi googu ca ci dëkk boobu daana wax ne ko fanaan ak man ci guddi gi yaa da nga tàggoog bàkkaar kon nag comme sëñ bi noonu la ko fonke woon ndigal loolu la sëñ bi di joxaat jullit yëpp ak taalib yëpp ñu ànd ñoo ñëw taxawul ko guddi gi taxawul ko bis bi na ko sëriñ bi fonke woon ñu fonke ko nu ko raw loolu mooy ndigal li di ko yëgalit président de la république Sénégal ak membre du gouvernement ak mboolem département euh, département de Bambey ak Mbaba Garaas ak waa Touba Pass Fall képp di saa di soññit daayira sëti sëñ Abib yu góor yi ak jigéen ñu takku di soññi waa tund wa yëpp sëriñ baa ngi leen di bàyyiloo xel bis bi ñi nga xam ne ay kilifa diina leen ca dëkk boobu te am lante woon ak sëriñ bi sëriñ baa ngi leen di soññ njabootuk suñ Mor Faasa baaxum da suñ mbay naay gol gi da njabootu suñ muudu kan bu tubaakan njabootu suñ mbàkki kan ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn sëriñ baa ngi leen di woo wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñi ngi ciy woo mboolem jullit yi ñëpp ni nga xam ne ni lañ ko baaxoo def muy njàngum alquran mi moom la ci sëñ bi gën a fonk moom la ci daan jiital kon sëñ bi nee na mi ngi soññee njàng mi ñi nga xam ne dañ daan jàng daaray eh, Ali te te ba Bassirou Mbuub di ko eh, jiite daanañu wàcc kaamil yu takku ñi ngi leen di soññi Serigne Mor Ndiaye itam moom itam daana ci wàcc kaamil yu takku ñi ngi koy soññi moom itam ci ci loolu waa ñi nga xam ne ñooy daayiratu Mafatihul Bichri ci ngi njiital Serigne Gora Diop mu nekk ca sexaw ga ñoom itam daanañ ci wàcce eh, kaamil yu takku ñi ngi leen ci soññi ba ci ñi nga xam ne ñiy jàngale ci daara jee di Nuurul Maahid ñooñu itam kenn ku ci nekk daana ci jàpp ñi ngi leen koy fàttali ñu fas yéene koo defee noonu waaye tam daayira yi nga xam ne nag ñoo aju ci kër gi sëriñ bi ne ñi ngi leen di woo xam ne bis bi seen bisa ah xam na ni fàttewuñ ko xam nañu fuñ toll nañ ko xel ci ñu ngi koy waajal waaye nag ñi ngi leen ciy dollee woo ah muy sëriñ Habib jóob ñu ràññi ko ci kër gi ak sëriñ rasin Fall te ak sëriñ Bada Diop te ñoom ñëpp ñu nekk Dakar ak sëriñ Gora Thiam ñoo ñëpp sëriñ bi nee na ñi ngi leen di soññ nañ daan takkoo ak nañ daan pëstéefoo ah ñi ngi leen koy gën a soññ ñu gën koo gën koo dolli waaye itam euh, fii ci Touba ba tey daayira sëriñ Ibrahima Ibra Coro Fall fële ca Ndaam moom it am na daayira boo xam ne da koy jiite moom it ñu ngi ko ciy soññi waaye nag daayira yi nga xam ne nag njabootu sëriñ bi ci boppam ñoo leen sos te daayira yooyu képp ku nekk fii ci dëkk bi daayira bu ñu ci tudd nga xam ko daayira yooyu ñu ngi leen di soññ sëñ bi ne ñu ngi di soññ ñu jiital ñu dale ko ci daayirab sëriñ Abdou Lahad Mbacke mu sëriñ Abibu ak daayirab sëriñ Xaadim Mbacke mu sëriñ Abibu ak daayirab sëriñ Seex Badar Mbacke mu sëriñ Habibu ak daayirab Soxna Naar Mbacke ca Daaru Moxti mu sëriñ Abibu ñoo ñëpp di njabootuk sëriñ bi kenn ku nekk jiite daayira ne euh, ñi ngi leen di soññi ngir ñu gën a soññ itam ñi aju ci ñoom ñëpp nañ ko daan defee rek ñu fas yéene koo defee noone waaye itam mi ngi ci soññ itam sëti sëriñ sëñ Abibu tam sëtam yi ci boppam Euh, moo xam ñi nga xam ne ci wàllu ndey wala ci wàllu baay ñoom ñëpp dañoo daje ah def ab daaira daaira boobu itam ki ki njiit li di sëriñ Fallou Fall ak sëriñ Modou kan sëriñ bi nee na ñoom itam ñu ngi leen di baloo xel di leen ko soññi ñoom itam ñu gën cee góorgóorlu ah luñ ci daan def rek ñu def loo xam ni gën na caa kawe kon ñooñu di mbooleem daayira yooyu yëpp daal sëriñ bi nee mi ngi leen di soññ ak ña nga xam ne ñooy waa dëkk ba ak tundu paas paas ak la ko wër muy tawa ak daaru baaxum ak mboolem dëkk yi nga xam ne euh, ak euh, sancub siñ ak euh, siin laykan dëkk yooyu yëpp sëriñ bi nee na ñi ngi ci ñi ngi ci sàkku seenu teewaay ci na nga xam ne na lañ fa na lañ daan taxawoo daal ñoom ñëpp woo nañ leen ci di leen ci yaatal di leen ci yéene itam ngir ñu am ci ngërëm ak li nga xam ne mooy ngërëmul sëñ Mandumbe jërëjëf sëriñ Abibou Fall jërëjëf sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abibou moom sëñ Mandumbe Xabaan mbokki jàkkaarlu ci li ñu seetaan kon woote baa ngi noonu sëriñ Moustapha nee ci kàddoog sëriñ Ibrahima bàyyiwut kenn bàyyiwut fenn bàyyiwut ñenn kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah mi ngi la ciy woo di ci woo njaboot ak sëriñ Touba gépp di ci woo njaboot ak sëriñ Mandumbe gépp rawatee te njaboot ak sëriñ Abibu mi nga xam ni moo daan taxaw bis bi di ci ñaanal way juróom di ko ci fàttaliku bi mu dëddoo nag sëriñ Ibrahima Mbàkke ak mbooleem njaboot gépp di ko ci ñaanalaale moom tamit di ko ci fàttalikuwaale muy bisu laylatul xadar ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru koor tombeek 30 mai ca Touba Pass nekk ca Baba Garage moo tax ne mi ngi koy yëgal ci di ko fàttali meeru Baba Garage di Moustar Ndiaye ak mboolem conseil yi nga xam ni ñoo nekk ca commune ba yépp bàyyiwuñu kenn kon mbokki jullit mbokki taalibe yi woote baa ngi noonu ñoo ngi ñaan képp ku fa teew yàlla faj say aajo ndax sëriñ Abibu doy na sëkk waaye itam sëñ Mandoumbe ëpp na moo tax bis boobule sëriñ bi daan ko def bisum ñaan di bisub sant waaye itam di bisub fàttaliku muy bisum dimbal di bisub tawféex di bisub faj aajo kon aajo yi ma nga ca pasfal ca laytu xadar ga incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu